si mën fii ay xale yu ndaw ñoo toog def ay live di yedda mag ñi ay xale yu ndaw ñooy yedda ay mag mag ñi toog seen saisi war a wax dëgg diine Sénégal war a wax dëgg waxuñu dëgg mag ñi léegi nag gone yi na ñooy taxaw di wax dëgg baal TikTok baal Facebook bi baal YouTube bi ko yaay naa dee dee ma may tax a bàyyi nañ ma jàpp nañ ma rey bu ñu mënee kaale ngeen jël si ma état génn moo ko ci i imam ndaw quand je parle d'état nag sa parle de tout le monde man am naa sa part de responsabilité ku nekk am nga sa part de responsabilité parce que ku nekk la nga waroon boo ko jii dañu lu am ñu jël ab benn naafeq jël ab benn doomu xaj jël ab benn doomu xaraam di ko fal suñu état muy jàpp suñu mag ñi jàpp suñu kilifa dina yi di gàll bi gauche di jàll bi droite et voilà la conséquence est là voilà yi la ñu jëriñ tey léegi nag comme neex nag moom. ngaa toog nga nga wax wax nga jàpp sa ñàmbur parce que réew mi ni fu mu jëm xamuñ ko fu réew mi jëm kenn amu ko ay kilifa kilifa kilifa am na kenn du ko def kilifa na kenn du ko def kilifa kaso kilifa moomul kaso kilifa moomul kaso gone sax moomul kaso yoo xam ne asuma la kilifa maanaam xale bu ndaw bu toll si digg digg dooleem ko si injustice nga jàpp kilifa tëj ko si injustice boole ko violé violé violé loi am ay ay droit am violé léppam du wax képp ku nangoo wax tey dëgg tey ji nii ñu lay jàppee terroriste képp ku taxaw di kaas ñu lay jàppee ab doomu xaj képp ku jàpp tey di wax dëgg ñu lay eh, wóorul sa famille ñoo ñëkk taxaw sa famille ñoo ñëkk taxaw tey ji nii ñoo ñëkk génn si yow balaa kenn génn si yow sa famille ñoo ñëkk génn si yow. yaa gis famille naa fekki taxaw fële nag na noo walaay booy bi dafa réew li muy wax Macky Sall li muy wax nangam naw bi man de génn naa si sa yaay taxaw fële jaxalaat sa mbokk yëpp sa papa génn si yow say mbokk génn si yow say parents génn si yow say mu génn si yow ñu ne booy bi dafa réew ñu ne booy bi dafa réew kii dafa xamadi kii billaay walaay jaale bu ko état gis nga tey imam ndaw dem ngeen mu si état de barke alxuraan maanaam xam nga maanaam bu leen méttiwul xam nga yéen imaam daal am na ñoo xam ne